mais apaisement situation politique au Sénégal maître Doudou Ndoye prône la suppression de cette loi dite corruption de la jeunesse. nee cette loi est obsolète. léegi. kon. xam nga maître Doudou sunu baay bi ba muy def émission ak Maïmouna Ndour Faye dafa xam la ne. su fekkee ne ci ordonnance de renvoi ba loolu figuré wu ci woon. Mhm. kon waruñu ci woon te kii di euh, Ousmane Sonko. kii di ministre Ismaïla Madior Fall ñëw démb def émission ak Maïmouna Ndour Faye mhm. daal di ne euh, ca ordonnance de renvoi ba corruption de jeunesse mu nga coow dégg nga wax bi baax na nag ce serait bien que Maïmouna Ndour Faye euh, ci logique bi mu nekk. Mhm. on la félicite la en passant mu invité kii di Ciré Clédor Ly ku ni mel wala kenn ci avocat Ousmane Sonko yi. Mhm. dina baax tamit ñu am un plus d'information du dëgg. te xam naa elle y pense certainement tel que je la connais. Mhm. mais damaa wax benn affaire. Mhm. soxna si Sénégal yëpp àdduna bi yëpp ñu ci ëpp ci mbir mi ñu ngi door a dégg corruption de jeunesse sunu baay bi Doudou Ndoye xamal nañu sax ni loolu amul France amul fenn. corruption de mhm. jeunesse soi-disant. kenn xamul encore que moom li moo laajte mooy kan mooy jeune. kan mooy jeune effectivement. kan moo la jeune. mais ci jamono bii Sénégal. est-ce que xam ngeen benn affaire ngaa la li gën a yomb ci ci ci ci ci këyit ca bind ma mu nga nekk ca virgule ak point virgule mhm. ci la ñuy yokkee ci la wàññee ci la ñuy ci lañuy ñuy nangam nangam et mhm. wax bi mu nekk lu lu lu yéeme lu extraordinaire lu lu fort surtout nag ci réew moo xam ni daanu def tout bu ñu bëggee éliminer nit. bu ñu bëggee éliminer adversaire politique <laughs> ma gis ne léeg-léeg gars yi dañ naan sax acteur politique bu bëgg am doole. ci Sénégal wala ci Afrique nañ la def prisonnier bu ñu la defee prisonnier rek nga nekk victime am buzz. ñu gis ni sunu nguur yi aussi suñu dénkaaneb askan yi ci Afrique bari na lu ñuy faagaagal ab leader bu population yi topp. Mm-hmm. dinañ ko faagaagal moo xam ndax dañoo am information bu nit ñi amul. Mm-hmm. wala dinañ ko faagaagal ndax dañ ko ragal. l'un dans l'autre. Mm-hmm. ci cas en l'espèce si on rentre dans le sens judiciaire du terme jamono bi ñu toll nag biir Sénégal lu fi waaye di wax ci mbirab yoon xulil. daa ko seet seetaat ko parce que xam nga lu tax dafa bëri ay ñagas-ñagas ak sew sew laa si wax boroom xam-xam bi mun na kaa def nii xulil te doo si mën dara baa ko tegee nii mu dëppee ko nii baa ko tegee na si des mu dëppee ko na si des donc la chose c'est quoi mooy texte ba qualité bu mu mënti am daañu ci yokk wàññi wala daanu ko interpréter selon na mu leen arranger corruption de jeunesse lañu ñu nit ba. la taxoon ñu jiiñ ko keroog lañ koy door a dégg même bu dee mhm. mu nga ca ordonnance de renvoi ba keroog lañ ko door a dégg dégg nu ko woon avant dégg nu ko woon nu ngi kaa dégg mu nekk sanction nit ñi ne mais lii mbirab politique la mhm. te kilifa yi mbirab politique boobu la ñuy bañ moom lañuy lànk léegi qu'est-ce qu'il faut faire face à cela comment il faut s'y prendre quest doit se dire est-ce que nit ñi mën nañu fexe ba seen xel du dem fenn fi c'est un adversaire politique qu'il faut éliminer donc alpha ou bêta on va se démerder pour l'éliminer pourtant pourtant pourtant kilifa yii tey di nekk ci logique boobu il y a ans ci ginnaaw lu ko jiitu. Mhm. ñoom contraire bi lañ doon défendre. quel soit tuuma ba. tuumaal nañ fi président Macky Sall jamono ba muy nekk candidat pour blanchiment. Mhm. blanchiment moo gën a graaw de ci jamono boobu. keddu diine yi sunu maam Serigne Bara yal na yàlla yokk leeram ci aljana gën a kawe. wax ak président Ablaye Wade ñu teg ci suuf loolu la ñu amatul léegi <laughs> këru diine yi dañuy wax kenn leen faale lu graaw. te pourtant dañuy xool sénégalais yi naan la léegi da ngeen ñàkk war ma ci këru diine yi te pourtant këru diine yooyu ka ñuy waxal moom kaabu war ma di ka ñaan faalewu leen dañu waxante dëgg rek lu doy waar la ñu waxante dëgg rek dëgg léeg-léeg day mel ni lu metti te mettiwul dëgg rek la da nga kaa nangu wala nga bañ ko dañu ne xam nañu topp xale yi naan da nga ñàkk war ma ci këru diine yi ngay gis autorité yi waa APR benn bokk yaakaar naan xale yi nga xam ne amuñu benn worma dem di jaxase kër diine yi ak xale yi te pourtant ñoom la kër diine yi naan mais lii teg leen coow lii teg leen ko ci su topp ñu wawle ne ca rek danga wax bi ne ca rek waaw ñenn ca kër diine yi waruñu xool kon ku ñàkk worma mu waxante dëgg rek yàlla tax kan moo ñàkk worma viol moom kenn mënu ko baale menace ak arme kenn mënu ko baale ñaar yooyu yëpp amul waa leneen la lamu ca lamu mu sa mais. te ci tàmbali ba kenn déggu ko ci woon. mais mais nekk na. nekkal nañ ko. ñuy xool suma ay kilifa yoo xam ne ndeysaan dañ leen woon loolu démb tey nag dañoo yem ci respecté leen rek point. xam nga respect ak naw ça fait nit ki da nga respecté ba pare naw ka naw jëfam mais bu fekkee mënoo naw jëfam nga yem ci respecté ko rek xam nga lu tax kaa respecté parce que nit la sunu borom a ko sàkk amaana def na ci moom lu mu deful ci aw yàllaa xam waaye am na lu kaa def defloo mu la def naka su dul noonu nga yem ci respect ba rek daal di xeeb jëf ba moo nu dal dal na nu de ñun léeg-léeg nag ñu toog ak. ay nit ñu ne ñu ah mais yéen yow comme keroog toog naa ak benn kilifa mu ne ma mais yow dama lay gis nga jël défense mais attention ah ma ne ko ah ci lan mu ne ma bul dem trop quoi ma ne ko waaw nee nañu dee ëppal baaxul dégg naa nu ko am ah. mu ne ma waaw parce que y a des choses que vous ne pas ma ne ah bon ma ne ko mais dimbali leen wax leen nu rek wax leen nu rek leeral leen ko rek xam nga lu nu maîtriser wu leeral leen ko rek bu ngeen ko leeralee rek nit ñi dal. Mm-hmm. waaw dalal leen nit ñi bu leen bàyyi nit ñi ñu la foncé nii rek. leen nu rek bien waaye ku gis nen ne ngi. voilà ne ne bu ngeen nu leeralee rek nu xam. Mm-hmm. coowal lii lu yomboon fay la mi yóbbu nañ ko foo xam ni qui peut le plus peut le moins. absolument ku mën a teg kudd ci ay dossiers rapport ay milliards yi milliards sénégalais yi waaye mën a teg kudd ci lii ñu dox ci jàmm la suppression de cette loi la bu ñu ko jaaralee assemblée c' est vite fait procédure d' urgence moom la suñu baay bi duud nooy wax ne mais c' tellement simple il dit que presto il fait comme ça il claque le doigt l'assemblée se réunit tac le projet de loi est voilà il plus de corruption de jeunesse parce qu'on se pose la question qui est jeune et on avance kon ñi ñu war a jàpp pare na hmm. te bu ñuy jàpp ci loolu xulil biir APR benn bokk yaakaar ñu bëri la jàpp wuy ma ci loolu noonu kon ñu bëri ñu bëri ñuy toog di wax ni dañ leen war a jàpp ndax ngongoog ngongoog xuleel ngongoog ngangak eh, hmm. yàlla ñu yàlla dolli sutura. yàlla na fi yàlla wàcc jàmm neel kay ñun ñi dem. Eh. ñoo nar a dëgg yàlla ndax léegi ku ñëw sax toog ne la corruption de la jeunesse. Ah. dekkal nañ fi lu dul fay fayda ñun moom ñu dem ah. xanaa ñu toog rek. dëgg ah. waxtaane mooy jeune. loolu loolu tamit. kuy jeune la kuy jeune. kan moo la jeune. Mm. Mm. du mat a seet la. la fanfaronnade est de trop. Dieu puisse nous en préserver. et mmh. nous aider à sortir de ce guipier. ce pays-là ne mérite pas on en est là tëj kër Ousmane Sonko bloqué ko te amul raison mais jox utal nañ ko raison et pire ma gis démb ñuy jàllale information xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg parce que information bu ñëw on se limitera à dire dëgg la ou pas mais su fekkee am na su fekkee am na su fekkee am na waxal ma doomi Ousmane Sonko jooju ñuy wax ne dafa ñëw di dugg si ci école bi Ngalandou Diouf defe naa. waaw waaw ñu ñaan dañ koy palper dañ koy fouiller xale ya bañ def composition. su dee am na loolu lu ñaaw la. lu ñaaw a ñaaw a ñaaw. lu bon lu dof lu dofee la sax lu dofee. Mm. xaw yenn xol yi nu ko nit mën a amee. ci xale bu ndaw. doy na waar de. c'est comme ça qu'on la haine. Mm-hmm. la ñuy pousser nit mu soxor juddoogul sax ñu war ko pousse ci. Mm-hmm. yàlla baax na ils sont en train en même temps d'en faire un futur leader. ils sont en train mm-hmm. bu dul bàyyam di moom. te bàyyasan Euh, corruption de la jeunesse moom damaa bëgg laaj rek balaa ñuy dem ci revue bi rapidement euh, corruption de la jeunesse moom ci wàllu euh, jëm ci ay viol yooyu rek lañ ko mën a xool corruption mooy nga nga na xale. parce que corruption de la jeunesse sens bi ñu ko jëlee moo di incitation à la débauche. maanaam poussé xale bi waaye kan mooy. xale fii mu def lu bon. kan moo la xale fii. waaw nenoo xaaral rek mu def lu bon. waa léegi yow nit ki jël alal fay ko nervi muy faagaagal kooku deful. corruption à la jeunesse la ah? dañ koo war a jàpp ci daan dem ak ña ca des. ñooñu ñëpp nit ki fay nit ki tamit mu toog ci internet bi di saagaal nit. waaw di di am salaire di saaga nit ñi waaw. corruption de la jeunesse la waaw waaw mm, daanu ah, doy waar sax bare comme daa bees dañoo bëgg a comprendre ndax ñun comprendre nañ fi lu ne ci droit bare na te jànguñu ko du dëgg bare na comprendre nañ fi ay kii parce que yow saa yu ma la waxee jox ma ci sa kuuru droit yi dangay bañ waaw man li ma fi jot a xam yépp ci ci télé bi laa ko xamee du dëgg. waaw ah. mandat de dépôt retour de parquet yooyu yëpp fi laa ko xamee <laughs> corruption de la jeunesse bés tàq. la ma la ma la ma sama yaay ja waxoon euh, Amsatou Sow Sidibé. Mhm. faw waaw ak ñiy laajte clé daf ma waaw daf ma daf ma waxoon sama yaay jooju. Mhm. daf ma xool ne ma xulil va reprendre tes cours de droit. xulil mhm. xam nga lu tax. non non tu fais pour ça vas-y. yaa booy. daañu si waxtaanal. incha demal wax dëgg yàlla. yàlla baax na sekk. comme woo ko sax. waaw ak Clédor ñii laajte Clédor. waaw ñii laaj Clédor. gis ku ne euh, ku euh, émission bi du du direct doo génn ci loolu nga nekk. mu ne la. direct la maa ngi nii di la tontu ci Clédor. <laughs> te gam ñi ma bokkal plateau lay tiiñal waxuma laa yéen. génn leen ci li ngeen ne direct la maa ngi nii di leen liir di liir Mamadou Diouf Galayka ah euh, Aminata Ba Abdal Abdallah Mané ah Oumar Thiam Lamine Konaté Cheikh li yaa waxoon loolu fàttew moo ko kon xam nga maa ngi en direct lu dëgg génn leen lu ne ngeen ñuy ji ndax benn fan bi ñu absenté ci sëriñ ci ci semaine bi ngeen ko rafetal nag ñoo ngi fi demuñu fenn ah alors avec la complicité de la